اللهم صل على سيدنا محمد خير الورى رسول وعلى اله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمه الله مبوك ييغا خامتاني سي نيو ني سيفر دي سوني مبوك دي سيفر شين بي دي كيفنا تي في واي دي دبليو اف كارديو نيو لي نوي دي لين شيار بو باخ باخ دي لين وخني نامون نان لين امون نان تامين مبكتي بو باخ توغ pour def ak yeen émission séral soxol ci doomi abdallah ji ngeen and ci xarit ahmed massar wax deug yalla mu nekk émission boo xamante ne sii neex na leen neex na ma te dara warlu ko nag lu dul doomi Abdallah ji ñuy waxtaanee donte suñu xam-xam matul dara it ñu nekk ñoo xamante ne si wax dëgg yàlla ay ndongo lañ waaye doomi Abdallah ji dañuy yëngal te moom moo leen yëngal it ngeen ñuy déglu kon ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax di leen nuyu waaye dañuy siyaare njabootu Mouhamadou Moustapha Ngom bi xalif ba caat ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ñaanal yàlla defal leen tawféex yokk seen fan si daraje Muhammadu Rasulullah waaye dañuy ñaanal xayraat gi yàlla defal leen jàmm ak fépp fu jullit nekk rek ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm baax si daraje Muhammadu Rasulullah mi nga xamante nag moo waral émission bi ki tax yàlla amal lépp ki tax yàlla euh, di dugal nit ñi àjjana waaye ki tax yàlla di dugal nit ñi safara ndax ñaara am lépp loo gis rek ñaar la allahu Muhammad waaye aljana ak safara lu baax ak lu bon waaye nag lépp li nga xamante ne si moo baax rek moom yonent bi laay lépp li nga xamante ne safaan rek kooku seytaane la yàlla nañ yàlla musal si seytaane ak njabootam yëpp si darajee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi seral sa xol ci nabi lañ wax dañ leen dugal suñu premier clip ngeen safoo ko bii nag dañ siy may sunu yaay Marème Fall wax dëgg yàlla tey fi ba génn nii moo fi génn sama téer bu mag bii di sëriñ ñaw ko waaye moom ma koy ñaanal yàlla yëkkati ko defal ko tawfeex bu baax ci liggéeyam bi waaye dañuy ñaanal suñu yaay ji yàlla guddal fanam defal ko teraanga gu yaatu si daraje Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaye dama koy may sama jigéen yu baax yi nga xamante ne si wax dëgg yàlla ñoo ngi sonn ci mbiru xayraat ku si mel ni jaara njaay wax dëgg yàlla maa ngi lay bégee bu baax ak soxna aaj maa ngi koy bégee bu baax acca yaa ngi si biir it maa ngi lay bégee bu baax waaye damay bégee sama kilifa PDG tey moom Mbaye Ndiaye Samb laa koy wax dëgg yàlla moo ne naa defal Mbaye Ndiaye Samb sëñ Moustapha Ngom kon Baye Ndiaye Samb bi ñuy dugal yaa ko moom kon bokk ñu dem bi te محمد من تمام نام ما ما من مرتكا بولي yi imaama ko loolu seen bakki moom katul إياس محمد الحمراء دير دمي شكرا ربا تمش حضر بجنر كبدار لكار شكرا كنوي محمد ينتي على محمد شكرا والله ما بالمصطفى هدي بلو لكن هو خير الورى قصد الورى شد أمينا ولا إله إلا إلا أداءه ختم يمينا لست أمك فيها شد أمينا ولا إله إلا إلا إلا بطل القدوة بدر عبد الله بكر سالم بكر mooy gabaw Salma yombaat li man wala tudduma gaw ma dëkk Sénégal jaaxal na salaam du tabax jumaa njaareemu te du jumaa Tuuba faloo te dee waa Cheikh Abdoulaye laat na jumaa jëf Cheikh Bamba nee na ci guddi gu rëy gi lum ci wax Cheikh Bamba nee na laylatul mawlidin nabi laylatul maghribi ليلة مغتا أبي وكل فاطمي شيخ بابا لي بودي جلي جاتك بها النجاة والفرح ما Thank you. ginnaaw ba ñu dégloo euh, sëñ Mbaye Samb bi wax dëgg yàlla kontaan bu baax ci waa xayraat gi macha allah ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla dëgëral seen taxawaay si daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax dëgg yàlla gàmmu gi jàll gis nañ ñëpp nu organisation bi baaxee ñoo ngi jaajëfal ñëpp te mbir yi moom noonu la rek amul secret yonent bi sallallahu alayhi daal bul si bàyyi. allah mbokk ba tey ñu desandi ak yéen si émission bi di kontaan bu baax si ñi nga xamante ne si ñoo ngi liggéey ci télé bi ku si mel ni sama caméraman bu ñaawal bi ni ko ji Momar de waxee rek lu mu filmé wul baaxul ñu koy wax alaaji Nitro di ko bu baax di ziare Ousseynou Karbala moom it mooy nekk ci xarale gi moo yor wàllum zëb bi waaye pour le moment koy bëggee bu baax moom mooy ne ci montage beeg yooyu waaw ah, mu war a montage yu garaaw moom la dara warul ko nag lu bëgg bëgg doomi Abdoulaye ji rek wax dëgg yàlla. waaw seral sa xol ci nabi moom da siy jël temps parce que yonent bi moom day bëgg yonent bi te lépp li seral sa xol ak doomi Abdallah ji dañuy waxtaan nañu ndax parce que moo ñor moo leen ñor yéen it waaw ndax muxtaaru safixun saalixun muslixun muhayminun saalixun nixmatullahi turi tedd yooyu yëpp turi yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam moom moo tudd noonu moom moo tudd mahmudun muhaddamun azizun fatihun miftaahu miftaahu rahmati waaye nag mooy miftaahu jannati moom yonent bi ay turam sa dafa neex waaw moom moo dàkk neex moom Moustapha moo waral neex moo tax sunu wasila bi da nga daan ba xamante lu mu koy dinaa ko Moustapha yaa Moustapha Moustapha yaa Moustapha di ko neexal maanaam ci turgu Moustapha bi nga xamante ne si yàlla moo ko tànn ba dara amulee ne ko nekkal sama soppee toogal foofu ba yàlla nag demee ba nam mu amel jàmm ñi moom Alaaji Malick day wax ni yàlla dafa jël ci leeru boppam bind ci leeru yonent bi leeru yonent boobu si la lépp amee mu ne yónni yónni gi ñu yi ak bind gi yàlla bind mbindee fi ne ne waru ñëw ak bi moo taxoon kon lépp rek rasulillahi la sallallahu alayhi wa sallam lépp moom la lépp moom la mooy borom borom tranga yi moom la mooy borom jàmm ji moom la boo bëggee jàmm rek demal toog si doomi Abdallah ji comme mbokki yi ni leen ko waxee sànq rek social bi ñu doon woon sànq wax dëgg yàlla mu nekk social bu màgg nag social kabiru laa ko tuddee man socialul kabir laa ko tuddee parce que nit ñi da ngay gis ni dañuy dañuy faj nit ñi ba pare duñ leen jox lu ñu sol wala nit ñee ngi jox nit ñu lekk parce nit ñi duñu am lu ñu sol Kifne TV nag moom dafa jug pour solal ñu amul lu lu ñu sol pour solo ñu amul dàll luñ dàll yu ñu sol wax dëgg yàlla pour jox ñi nga xamante si amuñu armoire armoire wala amuñu télé wala amuñu lal lépp li nga xamante ne si doomu aadama bi dina ko soxla rek te bu bu yàqu waxuñu nag bu yàqu am ñoo xamante ne si moom boo leen ne da ngay da ngay mayel yére rek dañuy dem jël seen yére yu yàqu yu yàgg di ko maye loolu moom wax dëgg yàlla baaxul booy maye da ngay loo xamante ne si da nga koy yow soxla nga ko kon mbokk yi am na ko ne si ligne bi Facebook bi moom wax dëgg yàlla waaw kon ni ngeen ko gisee noonu rek réseau bi la xam naa ñoo ngi sant yàlla ba di wax na ngeen ñaanal télé bi parce que soxla nañ ay ay appel direct émission bëgg nañ mu dem ba ñuy jàkkaarloog yéen ngeen di woote ñuy woote ñuy joxe ay teraanga waaw lépp wax dëgg yàlla pour pour doom Abdallah ji la rek te yéen yéen wax dëgg yàlla yéen kaa jar ndax bu ngeen jëndee seen connexion pour seetaan Ameth Massar mu doyee di muy wax dëgg yàlla seen i bëgg Moustapha la sallallahu alayhi wa sallam waaw ba tey ñu yeggal si social bi rek waaw képp ki nga xamante ne si am nga yére boo boo solotul rek te mu baax rek mën nga xa indi fi incha allahu rabbi dinañ ko am ñu ko jox ñu ko soxla waaye it képp ki nga xamante ne si gis nga ko amul yére rek wala moo daal gis nga ko xaw a ñàkk rek ñoo ngi lay ñaan nga signalé ñu ko bu neex yàlla rek dinañ dinañ ko euh, seeti joxal ko teraanga ci sutura ci darajey rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi dañuy dugal benn moo Mamadou Ngom Taaxa moom moom wax dëgg yàlla mu nekk jàmbaar ci yoon bi buñ ko seetaan ba ñu commentaire ci clip bi incha allah bi ne lañ cay may yaayam bu tedd boobu di Fatmata Ka ak ay xaritam ku si mel ni Siga Diouf ak Aminta ba dëgg yàlla ñu nekk ñi ma njëkk solal yére ci émission bi moo tax maa ngi leen ñaanal saa borom dafa leen tawféex dafa leen saxaadatu daareen dafa leen ba faw faw faw faw ak képp ki nga xamante ne si yaa ngi extérieur ku si mel ni Ali Dieng depuis États-Unis ñoo ngi may bu baax waaye Fatmata Ba Matar Ba rakkam ñoo ngi ko may bu baax ak képp ki nga xamante ne si yaa ngi si diaspora bi rek di béggi Ameth Massar seral soxol ci doomi Abdallah ji rek ñoo ngi lay may clip bii kon mbokk yi ñu dem seetaan ji taaxaa bi te ñëwaat incha allahu rabbi dëggal Buxaari te xarit waroon na bëggante buur bi yàlla nee na bëgg na ko Mustafa abibalaay soppe yàlla be yow la doon seet na bi rekk alhamdulillahi rasulillahi nabi gis naa jama am na man lu ma dee seet leneen ñi doy na ma yaa baabu lay bi taw ba te seydi jannate antal limaam Mustafa Muntaba daaru tabe di way jar di jaayoo sëy deeku la fàtte ree jama am na man lu ma dem di seet leneen di doy ma yaa baabu lay naa bi taw ba tee seydi jannate antal imam Mustafa bàyyi Muntaba Muntaxa doo seen morom yaa Rasuul yaay ki Yàlla gërëm yaay dëgg dëgg Yàlla bu màgg tamaat bi dootul am dootul am dootul am am si ya. ya Mustafa Ya Mustafa Ya tax yàlla amal Ya Mustafa Ku la tooñ nga Ya Mustafa Ku la ñaan may nga ko Ya Mustafa Jaay leen si yeneen day macha moki mbokk yi wax dëgg yàlla di kontaan bu baax ci Chérif Mamadou Ngom bi di ko ñaan moom it saa borom defal ko tawféex am na programme bu muy waajal di leen wax yéen ñëpp ngeen ngeen waajal ko teewee ko jàppale booy bi wax dëgg yàlla day wax ni mbëggeel bu yaay waroon a bëgg doomam mbëggeel bu jëkkër ak jabar waroon a bëggante yàlla moom nee amul mbëggeel boobu yëpp nee na mbëggeel googu yëpp jox na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tax mu ne ko yow yaay sama soppe Ibrahima xalil la sama khalil la waaye yow sama soppe nga sopp nag dafa jaxasoo ñoom ñaar dañoo jaxasoo moo tax keroog yàlla nee na ci alxuraan summa dana fata dalla fa kaana xaaba xawsayni aw adnaa kon yonent bi kenn du moom nu mu jege woon yàlla kenn du nu men dool kenn du ko sikki sàkk sax waaw moom moom kenn du sikki sàkk loolu suñu was neen kuy sikki sàkk loolu sa yow safara rek nga jëm waaw ndax moom jege na yàlla jege goo xamante ne sii moom yàlla xamul kenn ku dul moom pour mu jeex yowmal xiyaama moom moo fay nekk saayibul darajati moom moo fay nekk kuñ teral ki moo fay nekk kuñu darajal ki moo fay nekk borom nguur gi moom moo fay nekk kii ràmbu yowmal xiyaam seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy nekk ki nga xam mooy téye drapeau jullit yi moo fay nekk jàmbaar ji moom la nit di Yakar Dal. képp ki nga xamante ne si nga keneen ku dul yonent bi keroog di nga perte képp ki nga xamante ni nit wóor wéeru nga ci keneen ku dul Moustapha di nga perte keroog kon mbokk yi yonent bi balaa moo xat nañ ko jàpp léegi waaw mu nekk sunu lépp nag ñun ñu jël ko def ko suñu lépp mu jël mu nekk suñu ñu jël suñu lépp jox ko ko moom mu nekk suñu lépp kon mbokk yi dañ leen dugal suñu dernier clip ngeen safoo ko ñu ngi leen di bu baax te wax yàlla dañoo ànd ak kontaan parce que invitation bi ñu jigi réussir mu réussir ci pas-pasu jaamu yàlla yi pas-pasu nit ñu baax ñi waaye di gërëm képp ki nga xamante si ñëwoon nga rek comme sama waa ji nga xam jóge ba Touba keroog ñëw si bis bi Cheikh maa ngi koy bégee bu baax di bégee soxna may laa ma say Sidi maa ngi leen di bëggee bu baax sama yooyu nga xam ñoo nekk ndoon foofu Touba di leen jaaral di leen ñaanal yàlla dafa leen fa tawfeex si daraje Moustapha sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi dañuy dem seetaan suñu dernier clip incha allah rabbi bu ñu ñëwee rek ñu tàggatoo ak yen macha allah mbokk yi comme ni ngeen ko gisee rek wax dëgg yàlla mu nekkoon loo xamante ne si diisoon nañu trop pour ñu def defoo ak a ah émission Saare Soxal Sénégal bi buñ ko waxee daa war a yëngu moo tax saa su ne ñun dañuy ànd ak tàngoor parce que pause bi sax mooy dàkk parce que bu ñu posé dañuy teg ay son doomu Abdallah ji fecc ba tàng jër toog waaw ah, kon moo ko jar daal yonente daal lépp lu ngeen si def lu baax rek moom la waaw ah, lépp lu baax rek yonente bi moo ko moom bu leen ci xalaat sax. lépp lu baax rek Seydina Muhammad la bu leen si xalaat def lu baax yonent bi la saraxa yonent bi la julli yonent bi la lépp yàlla nee na moom nguuram taxaw na ba pare bu ñëpp booloo woon yor xol ku gën a saay def lu bon yàlla neen loolu wàññiwul sama nguur dara waaye bu ñëpp euh, booloo woon nit ñi ak jinne yor xol ku gën a baax neen loolu yokkul sama nguur dara man yàlla sama nguur taxaw ba pare julli yeeg woor yeeg saraxa yëpp yàlla daf kaa dara kon mbokk yi ci loolu di saraxe di julli juróom yi waaw di lu ci def lu baax waaye it bàyyi lu bon bàyyi fen jëw ràmbaaj iñaan lool lépp day lor ji ay feebar la yoo xam ne ñoo gën a raw coronavirus yàlla nañu yàlla musal si lool loolu yàlla nañu yàlla sorel loolu lépp waaye damay gërëm sama waa ji Sagna di nga jaajëfal bu baax borom foyer poly polygamique maa ngi koy bégee bu baax di nga ziare di ziare jabaram di ziare rakki jabaram di ziare xayraat gépp maa ngi leen di bégee kon mbokk dan leen jox dig daje inshallah rabbi ci benen émission seral soxol ci nabi istirli ya rabbana khafizni ya rabbi nas akramni ya rabbi wahid rabbi allah fi khadarna wa kullu ma kana wa manzilana wa kifna tv wa وإيفك رجو ya rabbi allah اللهم صل على سيدنا محمد خير الورى رسول وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته